seet si sëñ Mountakha eh, Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko fi suñu kanam te mu wér eh, ziyaare ko eh, li ñu bokk ñaan yàlla yàlla taxawu ko yokk fanam ak wér-gu-yaram kon nag lii moo nekkoon tànk yi nga xam ne moo ñu andi woon fii tey mu nekk bésub ziyaara di bésub sëñ Touba di bésub bépp taalibe sëñ Touba. lii rek moo taxoon ñun bàyyi suñu activité yëpp eh, te xam ne tànk yi mooy tànk yi ñu war tànk yi taalibe la tànk ziar la eh, ci bis màgg bi nga xam ne ni képp kuy jullit ci nga bokk waxatuma nag ñun ñi nga xam ne ay taalibe Sëñ Tuubaa la. oui merci beaucoup d'abord rendre grâce à Dieu euh, formuler Un formulaire également pour euh, Serigne Mountakha Khalif général des Mourites, pour que Dieu lui accorde encore plus de santé, plus de, euh, de paix, pour qu'il puisse continuer sa mission, qui est une noble mission au service de l'islam, mais également au service de notre pays, le Sénégal. C'est un événement important relativement à celle qu'on célèbre, qui est une référence pour tout musulman. On a tendance à réduire la dimension de notre grand-mère Mamdiara Bousso aux femmes. Elle a donné un exemple aux femmes, mais je crois que sa dimension dépasse les femmes. Nous devons tous nous inspirer de l'œuvre, de la vie de cette noble femme que Dieu a honorée euh, euh, à travers son fils. Et c'est parce que c'était une femme également d'une dimension exceptionnelle. C'est un grand jour. Nous ne pouvions, pas ne pas venir. Malgré les contraintes, je serais bien le jour même du Magal, mais ça coïncide avec le jour de mon installation à la mairie de Ziguinchor. Et c'est pourquoi nous avons anticipé pour venir faire cette ziara. c'est toujours un plaisir renouvelé de retrouver Seigne Muntaha qui est un homme euh, qui inspire, rien qu'à le voir face à face. Euh, de voir la lumière qui se dégage en lui, la sérénité, mais surtout l'accueil, euh, le sourire, l'hospitalité, ça, recharge en émotion, ça recharge en sérénité, ça recharge en spiritualité. donc c'est un plaisir particulier. Je dois pouvoir dire qu'il y a une relation que beaucoup de Sénégalais ignorent, mais qui est une relation particulière, faite d'affection parce quau delà du Khalif général, je vois en, ce, Muntaha un grand-père, un papa, en qui j'attends toujours des conseils, des recommandations, euh, des suggestions, mais également des prescriptions. Et c'est pourquoi c'est un plaisir d'être là. Au-delà de Seigneur Muntaha, j'ai une relation particulière avec Porokhan, parce que j'ai une relation également très forte avec Seigneur Moussa Nawel. Euh, j'ai une relation particulière et très profonde avec Seigne basse euh, tous les deux, on va leur rendre visite d'ailleurs tout de suite. Donc j'ai une relation particulière avec cette ville et avec ceux qui l'incarnent. Donc c'est un plaisir d'être là, en compagnie de mon grand frère, de mon partenaire politique, Aladji Malik Gakou, qu'on n'a pas à présenter aux Sénégalais pour euh, parler à notre nom personnel, mais également parler au nom de toute la coalition que nous représentons, la coalition Yewwi Kanu. Wi. di sante Yalla, di sante Yalla, gannaaw gi julli ci yonent Issa alayhi di gërëm sëñ Mountakha Mbacké bu baax baax di ñaanal Yalla nak, liko ko liko ñaanal kuy julit ak kudul julit sax ñu ngi koy ñaanal muy Yalla yok ko wër gu yaram Yok ko euh lepp lo ne luy dëgeural nit la ba mu mën lii nga xam ne mooy liggéey gi muy liggéey liggéey gu am solo ci yoon wi waaye liggéey gu am solo ci lislaam waaye liggéey gu am solo ci senegaal ndax gis nañ li nga xam ne mooy taxawaayam saa saa su Sénégal jaaxle kon loolu ñu ngi koy ñaan te lu ñu tibbee suñu xol la du waxu politique gannaaw gi it ñu wax ni euh, mbégte la ci ñun teew fii euh, ànd ak suñu mag suñu xarit suñu partenaire ci wàllu politique waaye ci wàllu àdduna it di El Hadj Malick Gakou ñu ñëw ci suñu tur waaye ñëw ci suñu turu coalition ndax dañoo bokk ci coalition muy yeewi askan wi ñëw ziare si euh, ci bés bu mag bi nga xam ne ki ñuy ziare dafa mat ñu war koo ziare muy soxna Maam jaaro Bousso nga xam ne léeg-léeg dañuy faral di ko di ko tegtal wala di ko jox royuwaay jigéen ñi kese mm-hmm. waaye jàpp naa ni moom dafa weesu loolu képp kuy jullit war nga war nga koo jël comme roywaay ci ni mu dundee ak euh, ni mu joxe boppam borom bi ba yàlla faye ko ko ni mu ko ko fayee moo indi tey Poroxaan moo indi tey Touba moo indi tey feneen ak feneen kon kooku ku déplacé wu ñëw ziyaare ko rek danga ko war a def du loo xam ne da nga koo def ngir ma Masamba wala Mademba waaye lu war la kon am nañu mbégte ci teew fii Euh, am na ñu mbégte ci jàkkaarloowaat ak sëñ Muntaxa nga xam ne euh, boo nee jàkk rek jàkkaarloog moom gis dal gi gis euh, yaatuwaay bi gis kanam gu leer gi dina am lu muy yokk ci yow ci pas ci imaan waaye dina am lu muy yokk ci yow ci li tubaab di wax sérénité mooy dal kon loolu mbégte la loolu it ma wax ni am na benn relation bu am solo bu ñu am ak moom te lu bari ci sénégalais yi xamuñu ko te loolu li ko jur mooy xoolewuma ko rek bëtu xalif général di murit waaye dama ko xoolee bëtu maam bëtu bàyyi te saa suñu ñëwee li ma ko faral di wax mooy dañoo ñëw déglu si dañoo ñëw jël si ay tegtal dañoo jël si ay ndigal dañoo ñëw weccoo xalaat ak moom te saa su ko defee ñu defee ko noonu mosuñu koo rëccu ñu wax nag ni ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko te bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg ndax réew mi soxla na ko réew mi soxla na ko diine gi soxla na ko yoon wi soxla na ko kon yàlla na ko fi yàlla yàggal ma daaneel nag ni dëkk bi bëri nañ fi ay wëllëre ndax sëñ Moussa Nawel ni ñu jàppee sëñ Muntaxa lañ ko jàppee euh, di koo xam ne it daf ñoo boole ci mbiram gis ngeen saa suñu ñëwee muy màggal Tuubaa muy feneen gis ngeen suñu dalal ak suñu waxtaan nu muy demee noonee nag lañ ko amee ak sëñ Bass Poroxaan nga xam ne eh, gannaaw bi réew mi yëngatoo ci eh, at ci gannaaw moom la sëñ bi tegoon mbir mi ci loxoom mu am ci taxawaay goo xam ne ñëpp gis nañ ko moo mu mu andi relation de confiance mooy kóolute gu am suñu diggante ñun ñëpp nag classe politique bi yëpp ak moom kon su ma fi ñëw it damaa ñëw seet si samay kilifa samay wëllëre samay soppe eh, daaneel ci wax nit dañoo ñëwoon nit gërëm sëñ bi ndax biñ ñëw ci màggal bi coalition bi yëpp àndoon ñëw seet si ko mu am lum ñu wax doonte sax ñun gëmuñu ni moom war nañoo gërëm ñun ñoo ko war a gërëm ci taxawaayam waaye moom ci niveau bi mu toll toujours day bëgg a wàcce boppam ba niveau boobu gannaaw bi mu waxee lool ba noppi daf ñoo ñaanal daf ñoo ñaanal te ñaan googu gis nañ ko ba gis ci lu kawe suñu njort ci lii ñu génn muy élection locale yi kon politique andiwuñu fi waaye am nañu sañ-sañ bu la nit ñaanalee lu baax nga gis ko boo ñëwee ne ko jërëjëf loolu tam bokk nañu tàkk ñu indi woon loolu daal lañ ci mënoon wax ci gàtt ñu ngi leen di gërëm di leen sant